ba tey lii lenn la ci xikam yi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan ko dénkaane Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na diggante def ak bàyyi ku ngeen fa seen du Abdoul Ahad man Abdoul Ahad daal damay def lu mat mbaa ma ba tey daana wax ne doomu aadama bu nekk la koy tax a tiit moo ko def moo xam diggam ak yàlla la wala diggam ak nit ñi la